waaw parce que euh, mon mon ami là soo gisee may préciser loolu. am <laughs> euh, xam nga information dafa sensible te dafay gaaw et puis comme. Euh, émission bi c'est très bien suivi ah. <laughs> su waxee yéen wax ne yéen waaw su waxee yéen wax ne yéen waa PS fu ngeen jëm dafa mel ne da ngeen am seen responsabilité donc je pense que j'ai la responsabilité de repréciser certaines choses bien sûr pour que euh, tout en sachant que nag il le fait en xam nga rek liggéey politique kii journaliste ñoom waaw ay coup de dans la fourmilière la ñuy fëgg pour affaire naaw coow <laughs> <laughs> mais dafa bëgg dafa wax ne mhm. euh, euh, euh, léegi dafa dafa wax mu ne dafa revenir sur la grande responsabilité du parti socialiste mhm. pour man c'est ça qui fait qui rend difficile le travail du parti socialiste parce que parti socialiste tout ce qu'il aura à faire sera décortiqué par ay spécialiste mhm. confronté ko au parti socialiste de par son passé trajectoire bu mu amoon cër bi mu am ak responsabilité bi mu am ak li ñu koy xaar ci ñun c'est pourquoi vous n'avez jamais entendu le parti socialiste di attardé wu sur des débats de bas étage mhm. Mhm. c'est toujours des principes des rappels des orientations loolu la parti socialiste te li nga wax la ko ci fi ñu toll nii ñun on a une histoire on a été au pouvoir exercer ko bi ñu koy exercer ce pouvoir la on a fait appel à d'autres Sénégalais yu bokkul ak ñun parti au nom de de de ce patriotisme ñoo ñu fekk si ñu ci Ablaye Wade fekk si woon na ci ci Amban Dansox fekk na ci ci keneen ak keneen ak keneen fekk nañu ci ñu continuer ko liggéey bi ñu demee ba Sénégalais yi jàpp ne parti socialiste amatuñ yéen ci yéen confiance. ci Ablaye Wade la ñu am confiance mais le parti socialiste courageusement et en toute responsabilité a été dans l'opposition avec la manière parce que kenn dégguñu fi ñuy taal kenn déggu fi ñuy yàq kenn dégguñu fi yàgg ñun sax ñoo fi théoriser woon une opposition responsable euh, républicaine ba nga xam ne su coow amee ñun on critique et on donne des sorties de des, des voies de sortie de crise ba yàlla def moo am les assises nationales ñu avancer ba nguur agsi bi ñu gagné loolu aussi on s'était engagé avec l'APR et le président Macky Sall devant les Sénégalais bi ñu ko defee ñu jox ñu ci ay cire ak ay responsabilités ñu koy assumer ce bilan la mais c'est inspiré et porté par le président de la République mais il y a la main du Parti socialiste. Bien parce que nous sommes au gouvernement nous sommes à l'Assemblée nationale nous sommes ailleurs et ailleurs et quand même l'apport du Parti socialiste dans la cohésion de Benno dans ces grands combats et dans ces grandes victoires ne fait pas de doute loolu lu wér la donc tey ci dynamique boobu ñu nekk benn dara moo ci am mooy kii nga xam ne moom moo nekkoon le candidat moom moo ci jóge mhm. loolu nag mënul ñàkk ci première heure yi mu am ay doute ay incertitude mais aussi je pense que on a une grande capacité en tant que parti parce que traversé nañ ay moments yu metti ay élections yu gën a difficile présidentielle te yooyu yëpp on a su s'entendre peut-être que nag comme ni ko oustaz waxee doyen waxee mais ci erreur yi ngay def moom la ñu bëgg a tirer ay enseignements aussi. Justement, parce que